programmer seen xel. loolu la appliquer c'est-à-dire que dañ dañ koy réciter. Scaloni. Lionel Sébastien Scaloni. bi yor Argentine. nekkoon footballeur yo nekkoon la Croix nga xaw ma mhm. ko jant bi soixante cinq minutes. yow nga ne daal yéey yaay yaa mën a 2-0 jàmm amul problème jël Di Maria teg ci banc bi moment bi mu nekkee ci match am noonu la ko def def na ko contre Australie. Mhm. def na ko contre Pays-Bas. def na ko contre xaw ma kan encore xaw a ñàkk match yi contre Pays-Bas moom da ñàkk Di Maria heure boo ko génnee Messi day rës. wala mu bàyyi ba deuxième mi-temps mu dugal Di Maria te Di Maria occasion yu bëri moo koy créé. waaw parce que Di Maria dafa nekk jour bu complémentaire. day marqué di défendre day attaqué day ubbi brèche day oyofal jeu. Mhm. soo amee bal. nga génn ko mais bi mu ko est-ce que xam nga ne avant muy génne yow mii nga xam ne xam nga football. yow ko ah man xaw ak Samba Soose. ah ak Ngalla ak ña des mbayante mën nga footballé. illah mbay xamut dara. Ah. la mbay tànk mi. nee na mbëkk bal teg dënn rek la man. mbay tànk mi. nga ni tànk mbay ju jubut. nga ni lan petit P. nee na football rek lay def. petit P loo tax man ma fan ko dama laa fan. mbay gàttaayam bi petit P dama laa fan. mbay bi ak hmm. ah, lu ngeen ci xam mais yow mami gisoo gisoo euh, yi ni mel. gàttu saf daal yàlla yaay yaayam du ko wecceeg njool bu njool bu tooy. déggal ma lool. nga la tey dama d'accord ak yow à xam nga xam nga joueur léeg nga xool tànk yi ko tànk mbay yi jubut de. ah dama la moo tax joueur tànk bi ah. loolu fu mu yow xanaa gisoo tàkki Ahmed Aidara mel ni XW. ak ak Varane Varane gis ngeen tànku Varane yi Varane gis ngeen tànku Varane Varane. jox sama saak ma neexal ma mi. moo tax waaw Paris France bi tànk yi nii lay def. gis day baaje tànk football la dëgg du jub. jub musul jub. yow sooy jubul li. ah yow Seyos daa dafay def a football da nga mën a football entre ah. parenthèses la def te démarré yaa ma moo yónnee message coach ne ko génnee ma dama sonn. non yàlla <laughs> euh, ah, de yàlla yàlla ci kàddu ba del seet yàlla ci kàddu gi. amul problème yàlla toppee Scaloni <laughs> match def na ko Argentine xaw naa ñàkk. Di Maria joueur bu mag la Paris Saint-Germain def nañ erreur bu toll ni bàyyi ko mu dem Juventus mais yaa mën a 2-0 doo doggali Gossas. Oh, assuré. Mhm. te li gën a grave mooy dernière occasion de but bi Di Maria di passe. waa ji waa ji waa ji waa ji waa ji rataka mooy mooy da koo dara génn rek mu génne di Maria dugal aku nga xam ni xeex rek lay def défenseur aku moom li mu xam mooy wàcc ci base bi équipe bi rës ku wàlloon ni xaw ma euh, joueur France bu ñuul bi ku <laughs> xaw ma Colomani Colomani <laughs> ma soof moo tax na ma baal leen baal leen nu de ñi ñi ñi supporté ñi supporté France ak ñooñu. ak suñu mbokk africain ya fa ne. jàmbaar ngeen de mais xam nga tax waa ji sof waa ji dafa dugg. man dama jaaxal après ma dem. Gosaas. Hmm? waa bi dafa dugg. waaw soppi match bi il a un mérite colossal. pour les Français. Mm-hmm. mais ndeysaan du du du mujj fenn. il passe dans l'histoire comme ça du du du du bu weex bu ñuul la. il passe comme ça ah, ñoom de amuñu lu ñu wax. ndax ñoom tirailleurs yi leen ci génnee démb équipe nationale. bu tout ça c'est toujours comme ça. tirailleurs <laughs> yi liggéey na France. Mm. xaw ma Sandrine la tudd xaw ma Charlotte. xaw ma. est-ce que du Kadijatu. nu mu mm, tudd xaw ma de. nu mu tudd damay laaj. yaayu France liggéey na laa wax. Mm. yaa leen di jox yaa yaa leen di jox jamaa yaa leen di mm-hmm. jox fier yaa leen di jox lépp jox leen ba jox leen kakao jël sa njaboot nag ne leen am leen dem leen ngeen gañe pour ñoom ñu dëkkee noonu rek moo tax. mais benn moment benn moment man damay seetaan match bi. Mm-hmm. ça on a comme l'impression que c'est une ah loolu la ñëpp doon wax. man nag loolu nag man nag loolu jaaxal na ma. Mm-hmm. daa daa sincèrement boo xoolee nit ñu ñu ñu aligné ñëpp mais nit ñu weex ñi mën nañ leen a compter. waaw ah, loolu moom lu mu demee. loolu moo tax ñu bëri nag ci football. xale yi nee nañ tirailleurs la. ah tirailleurs xale yi ko wax. ba pare nabu dafa am benn publication ba ne nee naa su ma ñëwee fook ma liiral la ko. oui xale yi ñu ne. football comme jigéenu tukulóor. <laughs> nee na fi ngay amee espoir lañ koy mayee ay mbokkam. Oh. <laughs> aywa ma ne li foog moom teg ko ko. loolu ñaaw. xam nga Sénégal kenn mënu fee stressé si jàmm. réew mi mooy réew moo xamante ne kenn mënu fee stressé si jàmm. nee na ci bël daal comme jigéenu fi ngay amee espoir lañ jàmm lañ ñoom ñëpp moo tax quoi ñu leen <laughs> maa leen moom. <laughs> maa soose ñoo leen moom. Tukulóor si kàllu ni daal ay jàmm lañ. moo yàq ma ci ñoo leen moom ñun ñoo leen moom. séedéet jàmm moo yàq ma ci yëpp yëpp yëpp. en tout cas démb. Ah, Mbappé a été a été immense. oui c'est un très grand choix. Cameroun eh, eh, te ci guddi gi xam nga lu tubaab yi doon wax. Mm-hmm. nee nañu Guinéen ba ak Camerounais ba ñoo raté penalty yi. quoi non ils n'ont pas osé. non ils n'ont pas osé dire ça. ils pas osé bu bonee yéen la. ah non non non mais ils n'ont pas osé. Mbappé Mbappé du moo dugal ñaari penalty yi ci match bi. dugal troisième bi moom la troisième dañ naan le franco-guinéen le franco-nangam. waaw boo réussir na le français. c'est le meilleur buteur de cette compétition. Euh, Mbappé il il est énorme il est énorme moom moom wax dëgg yàlla peut-être euh, Cameroun xamuñu woon lan lañ doon def mais moment bi mu doon bëgg a ñëw Cameroun bu ñu ko jëloon. mais est-ce que est-ce kenn waxatu ko c'est grand joueur. yéen ñi leen di topp man de dama leen topp. Mhm. yéen ñi leen di topp est ñoom ñi ngi ñëw Afrique fii di nemmeeku seen ay maamaati maam yooyu. ñu ko ci def am na ñu ko ci def Ngolo Kanté. Ngolo Kanté moom tout le temps mu ngi Afrique tout le temps mu ngi dëkkam. Ah, ah après c'est des Français ils sont nés là-bas c'est normal mhm. mais mbaa xam nañ leen paasal. après beneen côté bi aussi la France devient de plus en plus noire attention. waaw non seulement loolu li ngay wax nii c'est tellement vrai mais gis nga ku ci gaawul profité ñëw nemmee ko say maama ak say maamaat. des na tuuti ñoom ñu dëkk foofu ñooy daw ñëw Afrique. Hmm. Hmm. fi leeg diir. parce que nag hmm. Afrique day changé de Afrique day moom boppam de. ressources yi. ñoo xam ne buñ faloo dootul génn Afrique de. waaw waaw kay soose ya yaayu France Marianne la tudd yon nañu. Marianne. Marianne mooy yaayu France. ak ah, kër liggéey xanaa par ah, respect à toutes les Marianne rek. waaye liggéey. waaw xanaa moom moo jur France. moo ko ëmb wasin ko. moo liggéey lépp. moom kuy bàyyam kuy borom këram moom Marianne. la def est-ce que du roi roi ba kii ba révolution 1789 dimbal leen ma internet yi xamatuma de. laa ilaaha illallaah. parce que du kii Albert II xaw ma trois xaw ma liggéey na de Marianne de liggéey na. yéen daal ñëpp ay liggéey jox leen toog seen yaay liggéey na. ca mën a sàcc. Lioris Lioris ak rajo. ma ne ko wasin na ko mën sàcc. ñoo newoon ci équipe ba ci ñaar yu weex. mais loolu la gis nga gis nga gis nga gis nga bi ñuy def kii bi euh, série de tiro bi bi boo leen gisee ni ñu aligné mais dama naan mais lii seen équipe lii seen équipe africaine sa waay mais ñii war nañoo gën a fonk nit ñu ñuul ñi ah Mm-hmm. war nañ ñu gën a jox respect nag. Ah, bu ñu fonkul ñu fonk suñu bopp. dëgg yàlla ñu ñu ñun ñun ñoo libéré France. suñu maam yi ñu dajale fii <laughs> fii leen ci camp Thiaroye bii nga xam ne cimetière yi ba léegi ma nga fa. déedéewaay ñooñu seen i sët sëtaat ñëw di football ci équipe nationale de France. Mm-hmm. ñoom daal mën nañ ne fu ñu jàq rek nit ñu ñuul ñu sa walu leen. ah waaw baax na. buñ buñ ñu buñ ñu buñ ñu liiwul xam. bu ñu woowul xam mami dafa mel ni yow euh, ci euh, weekend bi da nga demoon ci séance tekkitu euh, Pape Pape Diouf bi ci album bu bees bi. laa ilaaha illallah paraît que album bi neex na loolu waaye. jërëjëf Petit Poussin gis nga. Petit Poussin. Nabuwa hmm? mooy Petit Poussin. ah bon. Ah. sama rak bii tubaab fakal daf def def jaune am def mireem bu rafet bi xaw ma nu ma tudd ree de milieu bii tubaab fakal la petit poussin rek ngay niru de tu es très belle ce matin. alors petit poussin waaw dama ni petit poussin foofu nga ma foofu nga ma yóbbu foofu baax na ndax dama doon xaar sax bay bëgg a dugg ci revue des titres bi ma door ci ñëw.